yi am na ci loolu si jotaay bi nekk mel ni loolu yi ñu siy bi sax suñu soxla ba ay jamono dama jógee moo seen ñoom boo damaa yor bopp sax ni mu ne bu gaaw na nga watu bu gaaw mu ndax nit lu mu bañ ñu niru la ko moom bu mu ko niru niru la ndax boo nekk ci biir naar niru leen tuddoo ko dañu jàppee ab naar waaye xaritaan la ñuy boo nekkee ci benn tubaab nekk leen tubaab mu xam ne mu ne tubaab li nga jàpp tubaab waaye gomet gomet li nga jàpp mooy jaamu tubaab boo nekkee ci biir pël nekk leen tubaab mooy xam ne kon matière li nga jàpp matière matière c'est-à-dire moo tax nit lu mu bëgg lu mu bëgg seen lu mu nit nul te du ko daal lu nul diggante waaye foofu la am na taw fas ne ma sëñ bi ma saa génn si jàkk ci suñu mën yàlla dugal tànkam ci daan bi becc dara mu génne daal di tànk daal di seetlu daal dafa dafa lu ci nekk waaye bu dee bu dee ab sandax bu leen ko rey waaye bañ daal xam sandax wala unk loolu lu mu doon dañu ko rey woon fekk niru ko rek moo ko waral. Mm. <laughs> waaye nag lii lii moo leen fekk sant yàlla ndax léegi. day mm-hmm. niru li ngeen doon. Mm. alhamdulilah alhamdulilah niru li nga doon ne boobu mooy lépp. te suñu borom defal na leen ko. moo mm-hmm. ci sant bu baax di leen si ñu soññi di ci encouragé ndax moom. Mm. sëñ Thiam du maa ngi daa fekk fële ay màkk màkk si ko def mun leen ni ngeen defal bu ñu xëyee jàng kenn am kay bu ñu ay ñeentee ñu ngi ñu xëccoo ko lool mën naa leen bu ñu xëyee dama bëgg bu si kaw bu sell rek daf ko andi sëñ Tuubaa taal bi seen loxo moo ngi li ngeen def waaye xam nga léegi lu mu mën a doon wute ko ci nañ ko war a wute daa gën moo tax maa ngi fàttali ko ay jamono dama wax sëñ Saliou ñoo toog maa ko ma oh, ne ko man ma de naa la bu baax ndax ci liggéeyu suñu tubaab bi nga ma ndax boo ko defutoon nit dama wut passeport service dem Europe ak ñëw suñu waa loolu daa xew la lu ñu wut lu ñu wut la de wut ko ci yàlla ko ki ngay liggéeyal ku koy liggéeyal dara jomb la muy suñu tubaab loo xam ne moom jamono boobu waaye ko ci muy jàng alxuraan sax ci dàkk di ko jox addi xëy na sax kamil yi ñu def ci daare kamil boobu ñu sax ñu def ci Tuuba suñ fa loo ko fa digle ginnaaw buñ tàmbali ginnaaw buñ noppi ci jumaa ji ñaari kamil yi ba dégg ci suba gi benn ba ci benn ngoon mi ñeenti kamil waaye lépp na ci ndigal suñu Tuuba la ko teg dégg nga xam daal alxuraan daal day mel ni ko séddoo séddoo gi it nag foo ak nitam nekk war nga ko xam ci moo tax ay jamono dama toog ci sëñ bi sëñ Saliou di ko wax di wax ak ma ne ko dafa mel ni sëñ Tuubaa dafa mel ni malaka ñu ko aana ak awrasa yu mel noonu loolu daa mel ni sëñ li ci li ko ci daara may ma dama ko ne sax dafa mel ni murit yi gi ñu ci alxuraan néew na ko ko ci am mu ni ma waxuma laa ab murit waaye ku mu jamono te gi nga am ci alxuraan ci daara jam rek su ndax li wax mooy man bi niiru kalkalal moo assuré loolu moo la dèjà teg man bi niiru kalkalal moo assuré li mu teg képp ku jamante nga boo ko seetloo ni mu ak li ñuy wax avancement scientifique technologie ci jamono yi muy feeñ si li mu toll daal ne man bi niiru kalkalal moo assuré man nii la suñu borom di leeral li dënnu képp jamante man kon dem na ba ci avancement technologie bi sax day daje suñu tubaab fu moo tax nag ko ci bokk ci suuf war na góorgóorlu bu baax a baax jamono bu nag man damay waxante suñu tubaab dafa dañu ko def observé ñu barkeel waaye loolu jànguñu ko dañ ko war a jàngati di ko jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng di ko nawal fi ñu toll waaw ndax ku ne rek lu ne mën a jàggee dama jàpp sax ne ni ñu war a taxaw ñu ko taxawoon xaj na dañ ñuy toppal du toppal kenn am benn gabane gabane bu bind Tiwaawan la ndax démb léegi ndax démb léegi maanaam gàmmu dama xam ci ginnaaw yàlla ma xam ne dara Sëñ Tuubaa la bu ñu ne dara ci yàlla Sëñ Tuubaa tax mm-hmm. gàmmu mm-hmm. ada wax ndax dégguma mm-hmm. ñëw dara xamuma joon ada wax yéen ni di ak tànk ñu ngi koy dox di ak noonu yaakaar naa kon gàmmu na cent pour cent dina ko doon ab jullit waaye nag ñu ñëwee dañuy jaxasoo seen tal yi ñu daan dem mais loolee ba tey ab junj ab aw njàng la doon ci noonu daal mooy di jéem ubbi ko si sa diggante ñi nga nekkal jaxasoo ñam ndax léegi ñu xëy am si jikko. ba dugg te te yéen a kenn ku yàlla jubale ci yow képp kat moo gën ci yow waaye xonk jëli kër mooy mooy li gën ci àll rek. Mm-hmm. li gën àll daal kenn gindi ko ngir yow moo mm-hmm. kooku li wax noonu de man ni mën nañ ci war nañ ci jàng baax na di jaxasoo ak ak waa réew mi mm-hmm. ci sunuy qualité ñun. ngir léegi ñu am ci xayam jëf mën ci dugg. تعجبه صخر نقدر نرجع بجي صخر بجل لمن نهجو ولا مسألة بجنان بهم نيكو ترادير يصير نشاف بدأ شيء أغلى يبغى بدأ فاهم لكن لو فاهم دون أغلى ديكو جاه بجي جاه كده شابه أما لو جاه نيكو جاه دوخة تفر هذا بين جانغ بين منزور عربي يقول أب كيف آه، هنات اللي هني دفعنا كنت بين سوسيتي سوريا آه، لكن أنا Cheikh Jabiir ko yóbbu Allemagne mu war fa am aw diir mu wax nag li ma ci metti ci dem gi lépp mooy sama yaay dafa tawat te bëgguma ko fi bàyyi te bëgguma lu ko lu ko naqari te moom sax topp naa ko di ma topp yaay di ko topp fonk yaay ji ba àgg ci yaay ji sax bu xamee nangam bu ko waxee bu la koy naqar sax dafa koy dafa koy bëgg bañ bañ rek ma ma di ci seen loo ko waxee ne ko société bi dafa maa bëgg a bëri sànq mu ñëw nee na mu wane ci mbéy ci laa doon ne amul benn jafe-jafe waaye dafa wax ne bi ñu yóbbu bi ñu ko yóbbu Allemagne léegi muy jël yaay ji di ko yóbbu di ko dugal ci oto bi di ko wàccee di doxantoo moom am benn toog bu koy seetlu te di doon di seet di seet di ko xool benn bis nee mu nuyu ma mu nuyu ma ni euh, naa laaj tuuti ma ko bisimilah laaj mu kii xanaa dina fay si ma ne ko déet kii mm-hmm. ma dara ma ne ko nekk di fayu dara ma ne ko fayu ma dara ma mu ne ma déet man damaa naa ba noppi de amul liggéey dama lay bañ yàq naa ma ne ko déet amul benn problème daal koy xëcc ñu ne ko du sama sama yaay la waaye nag suñ moom jàngal lii mooy ko a liggéey jëm yàlla ëllëg ak si mhm. mhm. di waxtaan ci noonu tubaab bi ni ko man de man dama liggéey naa ba eh, benn doom bu góor ne dañoo naa ngi taxaw def يكون الجديد يساعدني دين تاني واجب موي كون لباخو كم دين تاني واجب نعم دماغ جد كلام ده يجوا يكون يجوا دكير دكير دكير دكير والفعل ده ده توب توب فين توب ما شاء الله يا حمزة دي كوي أو يلا وني ولا waaye bu demee ba am xewam te it nag la ci doon baax mooy nga am loo ko woon damay jam ba damay wax ne léegi comme mbirum léegi léegi léegi xaal kese xaal kese kese xam-xam kese kese dara jàll ci fokk ñu ànd fokk nit am xam amu yëg boo xam amu yëg doo ko mën a boo yaa amee yëg-yëg xam-xam doo a jàll ndax doo ku dem ba am ki nga xamante ne dafa am xam-xam kese te amu bi du mën a jàll dara ki wut parce que boobu mën a jàll dara moo tax xaal bi ak xam-xam bi ñoo war a ànd na li koy maye mooy xam jëfe li nga xam boo ko jëfee mooy jéeg boobu jéeg boobu nu mu mën a jàll lu bari waaye foog ñu boole ñaar yëpp ngi daal moom ba ci ba ci ba ci sax téere bu ñu traduire sax nga jël ko denc ko nii boo gisee ko am tuuti xelam ci sax nga ci benn sa baax loolu lépp ci daawale bokk ci xeetu daawale mën naa jàll lu bari te ragal naan nag mbirum si tubaab mi am nañ ci part responsabilité ñun war ko tasaare saxaaba yi nag yoon te fi mu taxaw rek fa lañ jàll fa lañ tàmbalee ñoom yonent bi fi mu taxawoon te saa bi tàmbali jàll ndax Aboubacar moo jëkk doon xalifa te bi mu ñëwee li mu jëkk xalaat mooy nu mu jàllale daaw bi ci booru Dimash foofu Saam li ko wax Saam nag mooy ay Syrie Palestine yëpp ci lañ bokk waaye la mooy yóbbu yónni ay arme ci booru yi yónni yenn arme ci booru Perse yi muy tàmbali Iran ba Union soviétique léegi fi mu toll nii diine islam ginnaaw yàlla lu mu lu mu jël rek ci loxo yi chrétien yi ndax ñoo fi nekkoon jal boobu ñi ay perse daan jaamu xelam daan jaamu ay sawraag yi muy Iran jëm ne lii Byzantin dawla Byzantin yi nga wax muy yi ñooñu it ay chrétien yoon waaye fuñ fuñ dem nag ay église lañ fa waaye seen jikko la ñu ànd ñoom jël église bu dañuy jël dina pour ci fas nit ñi waaye ñu indi dina rek ci nii moo war a tax ci kaw suuf nga xam ne xeex bi daanaka xeex bi nii juguñ pour xeex waaye lu gàllankoor diine ci nag loolu lañuy ñuy xeexal léegi xeex dëgg-dëgg dañuy wax ni diine mës a ngir xeex waaye daan jóg ngir tasaare diine lu ko bëgg gàllankoor mu mu xeex loolu waaye xeex bi def toujours loolu de comme nii nii ñu koy doxalee noonu la mooy ko wane ndànk ba ndànk wala bañ cee bañ dara nag bañ cee bañ ñoom dañ daan tasaare diine ko bëgg gàllankoor ñu xeex yow waaye ñun ni ñu suñu tubaab doxalee rek mooy yoon fii loolu mm-hmm. mooy yoon mooy tasaare diine rek loolu yëpp lañ soxla xeex ma mos mos mosu ñëw jóg benn benn yoon ngir ngir xeex waaye dañu daan jóg ngir saara din mm-hmm. ku nu bëgg gaal ko ñu xeex moom loolu mm-hmm. yoon bi nag mooy dëgg dëgg yoonu mm-hmm. yoonu Sëñ Tuubaa tam mooy di jëf rek boo ko ko xew ku ko fekk xam nga yoon loo ko mën a leer nag boo ko leer la yàlla mën a def mën waaye li wax rek su ma seet na ci si melokaan yi ñu fekkee mbokk yi tey ñëpp dañ leen tagg nag dañ koy wax dañ koy wax ñëpp ñi fi jaar ñëpp ñu ngi koy wax nag di leen tagg di leen sant bu baax ñaan suñu borom mu dëgëral leen dal dañ ko jëme kanam bu baax ba kenn ku ne ci yéen la mu yéene mën ko yeggale moom nii sëñ bi waxee moom ñi dañuy féete fii ñu féete fii ndax man maa ngi yor dara jafe waaye mën ma ci dara léegi gaañ ñi rek ñu yónni seen jàpp seen ndimbal di ma ko jàppale ba tax la ci dox lépp loolu ko doxal waaw léegi moom ab cant la ci noonu. di sant suñu tubaab baax sant suñu moo tax daanaka moom te it lu baax daa yomb jafe. ndax li mu yombee mooy wet goo rek. boo fa jafee soxla nañ ko. jafe gi nag mooy boo bëggee xool genn benn point jàpp ni fi rek la lu baax war nekk bu fa du foofu du foofu. di daal waaw loolu dafa yaatu waaw. Imam Malik dégg naa day jàngale. am benn soofi bu soobu woon ne ko yow daal boo bàyyiwoon sa fii. ci soobu gii ñuy jëlee bu wér moo gën moo gën a gaaw de. Imam Malik ni ko li nga nekk baax li ma nekk baax